lu ngeen def da ngeen jàng daara li ngeen yalwaan nii léegi masque ngeen tak pour lan la. ban feebar la. ah. coronavirus. coronavirus. léegi ku takk ku tak ku takk ku takkul la moo lay dal. te boo feebaree looy def. dee da ngay dee kon bu ngeen demee si daara ja ngeen wax seen nañ takk corona nañ ngeen voilà très loolu moo baax taalibe yi sax ñu ngi takk ay masque très bien ah yéen ma ay taalibe yu responsable ngeen ngeen wax seen morom taalibe yëpp nañ takk ay mas fu nga dañeen ko may waaw ñu leen ko may aussi ngeen ñaanal leen loolu baax na trop ñu leen may ñaan masque xaw ma ñan la waaye ñu baax lañu maa lay siyaar waaw yow ñu ngi la fekk ni si nga yore sa saret takk sa masque lan nga takk lu tax nga takk masque ah gannaaw lu xew si dëkk bi waaw masque moom mënut a ñàkk moom dëgg la waaw après di raxasu ba set yaa ngi dégg sa njaboot très bien kon ban ban ban ban ban kàddu nga xam booy tey jii sa morom yi dawal sareet aussi lu ma leen digal ah. na ñëpp takk masque très bien mm-hmm. te kenn ku ne du toog ak moromam mm-hmm. na may euh, euh, ah, na am distance ah, très bien mm-hmm. na am distance kenn ku ne takk masque di fagaru très bien boo duggee sa kër doo duggee sa kër it balaa ngaa dugg sa biir néeg nga jël sa sa saabu raxasu ba set doog a dugg sa sa kër waaw di sol seen masque xam nga kon léegi moom nit ñi am nañ conscience ah booy mm. la waxal ci kaw. pour corona. baax na wala baaxul. baaxul lu muy def. day reyaate day reyaate kon ni kon ñu ngi lu war a def. ñu sol. seen. masque. très bien ban daara nga nekk. jaaw daara fan fii fii fii ban quartier la. ah ban la. est-ce que sa yéen a mën taalibe seen masque. ah waaw boo ko defee nga wax ko taalibe yëpp ñoom ñëpp sol masque su ngeen amul sax fii ko koo dugg ñaan ko masque mu may la masque dégg nga. na ngeen yelwaane ceeb di ko yelwaane xaalis di leneen ngeen di gaay kat ngeen léegi xam nga léegi wax sarax leen ñu masque leen sarax masque ngeen def seen masque même su ngeen amul dégg ngeen très